màgg la di liggéeyu yàlla di liggéeyu yonent bi di liggéeyu cheikhul xadim te ñi ñu ci boole di daayiratu muqaddamatul xidma bi nga xam ne ñoom lañu dénk lu jëm ci saytu jumaa ji ak lu ci aju di fam nuyoo bi ak cant gi yépp di ko teg ci loxol kilifa gi nga xam ne moo jiit daayira bi muy sëriñ Afiya Buso al imaam ngir mu jottali ko ñi waa daayira bi yépp suñu cant ak suñu ngërëm ci boole bi ñu boole ci liggéey bi di sant bu baax cheikh muhammadul muntaqa xafizahullahu waraa yàlla bàyyi ko fi lool te sàmm ko ba mu àggale yéeneem yim yéene ci diine ji yéene ko ci yoon wi te ñu ñépp ñu ànd ko ak moom ni ko sëriñ fallu waxee sëriñ fallu buso ci waxtaan wi fi mu jëm ak ni mu demee bala may tàmbule nag damay dogal ngant rek ci waxtaan wi ne mën naa am mu bañ a demee niñ ko séenoo waaye li may dimbandikoo nag mooy kiñ ma booleel ma bokk ko ak moom rek muy sëriñ Fallou yaakaar naa ne sax bu ma jógoon fii jox ko barab bi mu toog fii mooy gën a yay ngir mën a teqale liñ fi war a teqale ndax moo ko gën a xam te moo ko gën a mën kon moom lay dimbandikoo ci lu manqué ci waxtaan wi rek walla lu ci leerut mu matal ko leeral ko ni mu ko waxee nag mawdu bi nga xam ne moom lañ jël wala thème bi tomb bi mooy aljahlu bi faraidi l ayni wa atharuhu fi ala al fardi wal mujtama wa atharuhu ala al fardi wal mujtama mooy réer réere sa faratay jëmm réere safara te jëmm ak jeexit yi mën a jural nit ki ak nit ñi nit ñi nga xam ne ñoo ko séq ak moom bu ko defee noonu mu ko waxee ci tomb yi danañ ci romb ci yooyu tomb bu gaaw ndax waxtu wi du ko maye ci guddal gi euh, waaye loolu lépp balañ ciy jaar rek euh, fawu ñu wax tomb bi solo gu am solo ak lu tax ñi ko tànn tànn ko ndax xam nañu réer mooy feebar bi nga xam ne moo gën a garaaw ci mboolem feebar yi nga xam ne doomu adama dana ko jànkonteel yi jot doomu aadama feebari biir wala feebari ko yi nga xam ne mooy jot doomu aadama boroom xam-xam yi nee nañ réer moo ci gën a garaaw moo ci gën a tar ndax lu tax mooy jur lépp leneen lu dul réer rek réer a ko jur bu ñu ñëpp xamoon rek lu baree bari ci problème yi am ci àdduna du am kon mooy feebar bi gën a garaaw ci feebar yi gën a rëy ci feebar yi waaye day loo xam ne it lu yàgg ak doomu aadama la yàgg na lool doomu aadama daa ñëw ci àdduna rek àndaale fi ak réer ñàkk xam dara wallahu axrajakum min butuni ummahatikum laa taalamuuna shay'a nee na bi wàccee ci kaw suuf génne leen ci seen biir yi ndey xamu leen dara da wàcc xamu leen dara waaye ba ba bëggee ngeen xam ma wut ay jumtukaay yu xam boole ko ak yéen ngeen ñëwale ko wa jaala lakum alsama wal absaara wal afidata laallakum tashkurun ma wutal leen jumtukaay yooyu nga xam ne ci lañ mën a jaaree ba xam muy gis muy dégg muy xel nit yi muy jumtukaay yi muy mën a xamee yépp mooy day gis day dégg day day xalaat ci xolam kon jumtukaay yooyu mooy jumtukaayu xam yéen sunu borom tabaraka wa taala bi mu ñu wàccee ci suuf xamuñu dara it daf ñoo boole ak ak jumtukaay yoo xam ne bu ñu ko jëfandikoo mën nañoo xam mu yooyu ñu tudd kon doomu aadama réer la ñëwaale réer la ñëwaale ci kaw suuf di xamlu nag ba jéem a jëlee fi réer googu ci boppam kon noonu ñu ko waxee réer mooy cosaanu musiba yépp fal jahlu aslu kulli shar loolu xikma la boo xam ne siiw na lool ci boroom xam-xam yi ñu ne réer mooy cosaanu ay yëpp ay woo gis rek réer mooy cosaan ba am na ñu ne Seydina Ali radiallahu taala anhu moo ko wax am na ñu ne Ibnu Xaldun moo ko wax am na ñu ne Aflaatun moo ko wax waaye lu ci mën di am rek wax ju wér la joo xam ne ku ko vérifié da danga gis ne lu dëggu lay doon lépp li ñuy gis ci ay boral ay jafe-jafe ak ay musiba yoo xam ne ñi ngi koy gis ci àdduna bi ak ci alaaxira sax la ko jur mooy réer réer moo ko jur looloo tax mboolem ñi yàlla yónni woon jox leen message ñu indi ko ci àdduna bi ngir bëgg defar àdduna ñoom ñëpp biñ dikkee dañ fee jéem a xeex réer jële ko fi ndax xam nañ bu ñu ko fi jëlee rek seenu defar dana yomb seenu baaxal dana yomb waxuma la sax diine yi waaye yeneen civilisation yi amoon sax te du diine waaye ñoom ñëpp maase nañ ci ne defarkat yépp kenn ku ci nekk bi nga ñëwee dangaa gis ne réer mooy sa combat bu njëkk boo xam ne da nga ko fi war a jëlee door a mën a defar li nga li ngay li ngay li ngay defar ñoom ñëpp tam ñu ŋàññi ko soññ nit ñi ci safaan bi muy xam-xam mboolem diine yi ba ci diine lislaam lépp dañoo ŋàññi xam-xam euh, réer waaye dañoo soññ nit ñi ci safaanu réer muy muy xam-xam kon loolu war na ne réer lu rëy la lu lu lu lu garaaw la loo xam ne lu mat a xeex la ndax loo xam ne boo ko xeexee mel na ni xeex nga yeneen yi ci des yépp kon moo mat a njëkke moo mat a tàmbulee liggéey bi ci xeex ko ba mu jógee fi loolu nag ci lañuy ñuy tàmbulee wax lan mooy réer nag ndax mbir bala nga koo mën a wattandiku da ngay xam mooy lan mbir bala nga koo wattandiku da ngay xam mooy lan réer mooy lan réer ci gàttal rek bu ñu ko doon wax boroom xam-xam yi dañ ciy wax réer ci luxaak réer ci nangam mais yépp loolu itteeluñu li ñu rek itteel rek mooy lan mooy réer bu ñu nee réer rek mooy lan mooy ñàkk xam li nga war a xam ñàkk xam loo xam ne da nga ko war a xam nga ñàkk koo xam loolu mooy réer ci gàttal wala nga xam ko xamin woo xam ne dafa safaanoo ak nam doon ñaari mbir la xamoo li nga war a xam wala am na loo xam ba defee ne moom la moom ñaar yooyu yëpp ak réer la ñaar yooyu yëpp ak ak waaye buñ nee réer nag ci ñun ci suñu Maodo bi ñuy waxtaanee buñ ci waxee réer luñ ci jublu mooy ñu réer goo xam ne dafa aju ci warugaru diine yi nga xam ne yàlla dafa la koo togg mu war la nga war koo xam nga réeree ko xamoo ca dara wala nga am loo ca xam loo xam ne dafa wuute ak lam doon dafa wuute ak lam doon sa xam sa sa war warugar yu diine yi ñëw yàlla togg muy julli muy woor muy yeneen yi ca des ca dara wala la nga ca xam dafa wuute ak lam doon loolu muy réer moo tax boroom xam-xam yi dañuy wax ne réer ñaari façon la jëhlu basit ak jëhlu murakkab jëhlu basit mooy réer gu réer gu simple réer gu ndaw réer gu ndaw goo xam ne nag xamoo dara xamoo ci dara loolu réer gu réer ndaw rek la waaye jëhlu murakkab nag mooy réer gu mag gu complex mel ni réer gi dafa tegaloo ci ñaar da nga xamut te xamoo ne xamoo loolu mooy jëhlu murakkab xamoo te xamoo ne xamoo jahal murakkab kon loolu buñ ko dee misaal jëxlu basit wala réer gu ndaw mi ngi mel ni ñu laaj la rek ne la lan mooy faratay koor nga ne xaw ma ko de loolu réer rek la xaw ma ko jéemoo ci dara loolu mooy jël gu ndaw réer gu ndaw jëxlu mu rakkab nag mooy ñu laaj la lan mooy faratay koor nga ne juróom benn la xam nga yow yemoo ci ñàkk xam rek waaye indi nga leneen loo xam ne yokk nga ko ci kon dangaa boole ñaari mbir xamoo te xamoo ne xamoo laa yadri wala yadri annahu laa yadri loolu moo gën a garaaw kon ñaari réer yooyu rek moo am waaye nag gu gu mujj gi nag nga xam ne mooy réer gu mag gi moo gën a bari lor ki xamut te xamut ne xamut faratay koor ñaata la nga ne juróom-benn la te faratay koor ñaar la nga ne juróom-benn la kon yow xamoo te xamoo ne xamoo wala li nga xam wute na ak li li li li am wute na ak li nga am googu réer nag mooy réer gi nga xam ne moo ëpp ci nit ñi li ëpp ci nit ñi réer googu lañ réer waa dañ dul xam am luñ xam loo xam ne dañuy defe ne moom lañu war a xam te lu lool li ëpp ci nit ñi xam lu mel noonu lañ rawatina ci mbirum diine rawatina ci suñu réew mii damay war a faral di wax ne diine rek mooy loo xam ne amul spécial ci Sénégal ku am xaftaan am kaala am mbaxana rek mën ngaa doon nitub diine bu la neexee taxaw ci télévision bi taxaw ci rajo bi taxaw fu ne lu ñu laaj ngay tontu gis naa fi ay mufti yoo xam ne léegi kenn xamut fan lañ jëlee ifta fan lañ ko jëlee lu ñu laaj rek ñu tontu fu fuñ fuñ ñu toog rek lu ñu laaj ñu tontu ndax jàpp nañu diine moom mbirum ñëpp la ñeneen ñi sax dañ koy faral di wax boo leen waxee ñu ne man sama maam imaam la woon wala sama maam nangam la woon kon war naa doon loolu man te nag xam-xam kenn du ko doonante xam kenn ko doonante am maam ja am xam dana yombal xam-xam waaye du tax am xam du fa xam-xam kon diine mbir la moo xam ne moom ñépp daal ku ku ñëw rek ne ko moom dugg ci biir tab ci boo gisee ci jamono jii waxkati rajo yeeg ñi nga xam ne ca làmb ya la ñuy wax ak ñi nga xam ne ca football ba la ñuy wax ñi nga xam ne ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk bu demee ba ci diine rek du wax la muy wax bu doon leneen bu ñuy waxtaan ci débat yi booy déglu bu dee koo xam ne xam-xamam jëmut ci droit bu ñu ko waxee mu ne man lool du sama xam-xam xëy na yéen yéen a ci mën a wax wala nangam du sama xam-xam yéen yéen a ci mën a wax waaye bu dee diine moom def naa man de sama xalaat mooy nangam xalaat naa ci nangam kenn ku ne daal am nga ci xalaat kon daa mel ni li ëpp ci nit ñi jëhlu mu rakkab moo leen dal mooy xamoo te ne xamoo xamoo te ne xamoo muy réer gu metti nag koo xam ne sunu borom yàgg na koo jàmbat yàgg na ci àdduna loolu yàgg na ci àdduna jëxli yàgg na ci àdduna waaye réer goo ànd ak ñàkk xam ne danga réer yàgg na wa minhum ummiyuuna laa ya'lamuuna alkitaaba illaa amaaniy wa in hum illaa yazunnuun nee na ñii de ñoom dañoo defee ne xam nañ xam nañ téere bi waaye lañ ca xam lépp ay amaani la rek ay defee jot jorta ka fekke rek defe rek loolu rek la waaye xamuñ ci dara wa min annaasi man yujaadilu fi llahi bi geyri ilmin wala hudan wala kitaabin munir ñu ñoo xam ne li ñuy wax xamuñ ci dara te dañuy werante ci diine werante wu metti ba mel ni xam nañ ci dara te la ñuy wax xamuñ ci dara bi geyri ilm wala hudan wala kitaabin munir xamuñ ci dara kon jëhl mooy loolu mooy réer ñàkk a xam li nga war a xam wala nga xam loo defee ne moom a tudd moom loolu mooy réer fardu ayni nag mooy lan mooy sunu borom tabaaraka wa taala bi mu bindee jaam yi daf leen a sant benn soxla muy jaamu ko te bañ ko bokkalee kenn wa abudullah wala tushriku bihi shay'an jaamu leen ma te bu leen ma booleek dara waaye jaamu yooyu nag daf koo séddale ñaari xeet ci ki koy def ki koy def ñi koy def du koo séddale ñaari xeet jaamu yoo xam ne daf koo farataal ci kenn ku ne mu waral ko ci yow kenn ku ne yaa ko war a defal sa bopp jaamu yàlla yoo xam ne mbooloo bi ñoo ko war a def warul kenn waaye ñépp la war mooy ibadat fardiya wa ibadat jamaaiya ibadat fardiya wa ibadat jamaaiya ibadat fardiya yooyu nag mooy yi nga xam ne eh, sunu borom tabaraka wa taala wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa sàkku ci nit ku ne ci mukallaf yi sàkku goo xam ne sàkku gu dogu la sàkku goo xam ne obligation la mënoo ko ñàkk def yàlla da ko sàkku ci yow talaban jaziman mënut a ñàkk faw nga def ko boo ko defee yàlla fay la ab yool boo ko defut yàlla mbugal la loolu mooy fardu fardu ayn wala mooy waajib shar'i loo xam ne boo ko defee yàlla fay la boo ko defut yàlla mbugal la te mënoo ko ñàkk bañ a def wala sañoo koo ñàkk bañ a def kenn mun la koo defal tam kenn mun la ko remplacer feeg defoo ko rek du la wàcc bu ko ñëpp defoon te yow defoo ko it du ko ñëpp defoon te yow defoo ko du la wàcc lu mel ni julli bu jumaa ji feesoon dell ak i jullikat ñu julli ba noppi yow nga dem toog fee julli woo ñoom ñépp seen julli yi mënut a jariñ sa julli gi dara ndax yow rek la war yow kenn la war kenn mënu la ko wàcc koor gi loo loo ba baax baax loo bëgg-bëgg sa waajur gis ko rek koor gi metti ci moom nga ne ko wooral du baax ndax moom moo ko war a def bu ko defut du ko wàcc loolu mooy far du ayn loo xam ne yow la war yaa koy defal sa bopp te kenn mënu la caa wóotu te boo ko defut la wàcc boo ko defut du la wàcc arkaanul islaam yépp ci la bokk salaat zakat xaj yooyu yépp ak yeneen yu dul yooyu ci yooyu la bokk nga xam ne kenn mënu koo defal kenn foofu moom day mel ni ki ko ki ko digle day xool al faail yanzur ila al faail laa ila al mafuul kii def la lay xool waaye xoolul jëf ci xoolul ne julli am na rek julli nañ julli nañ déedéet waaye ku julli mooy diw diw laa ko sant bu ñëpp julli woon te moom julliwut loolu du sotti fardu ay ni mooy loolu loo xam ne kenn mënu koo defal kenn kenn du ko defaale kenn kenn na koy defal boppam moom lañ koy laaj jëf ji li ñuy xool waaye duñ def duñ xool wala wala kii def la ñuy xool waaye duñ xool ki ko def duñ xool jëf ji mu def alfaail lal faail laa ilal faail tere itam noonu naan sàngara tànk ndox tànki caaxaan ak dëngee sa ñaari waajur ak yooyu yëpp ay tere la yoo xam ne nit kee ko war a defal boppam nit ki bu dee bu doon naan ñollu keneen keneen ñàkk koo naan nga ne man kooku yóbbaale na ma de du la yóbbaale yow sax ñàkk koo naan lañ taamu yow ci sa bopp rek yaa koy yaa koy yaa keneen mënu ko bàyyi rek yóbbaale la dëngee sa ñaari waajur nit mënut a topp ñaari waajuram ba yóbbaale yow sa topp sa ñaari waajur yow yaa war a topp sa ñaari waajur wala dëngee leen boo leen dëngee dëngee googee yow yow la yow keneen du la ca wutu kenn mënu ca wut kon ndigal yi ak tere yi dafa am yoo xam ne nit kee ko war a def kenn du ko ca wutu mooy fardu ayn loolu la ñu tuddee faratay jëmm farat yoo xam ne jëmm ji la war sa jëmm ji am yoo xam ne fardu kifaaya lañ koy mooy yi nga xam ne mbooloo mi la war su amee ñu ko def rek wàcc nañu ca des buñ demoon ca armeel yi tey nit suñu mbokk génn àdduna ñu waajal ko sang ko sang ko dem jullee ko daal di koy denc su amee ñu ko def rek ñettoog toog ca kër ga it wàññiwu leen dara du leen wàññi dara ñëpp bakkaar ba wàcc na leen ndax warut kenn waaye ñëpp la war te am na ñu ko def ñu doy kon wàcc nañu jël loolu mooy fardu kifaaya kon far far fardu ay far farata ñaar la mooy fardu ayn ak fardu kifaaya farata boo xam ne ku ne la war kenn mënu koo defal kenn ak farata boo xam ne ñëpp la war bu ko ñenn defee mu wàcc ña ca des bu ko ñenn defee mu wàcc mu wàcc ña ca des moom moom fardu kifaaya moom dañuy xool jëf ji waaye duñu xool kee ko def jëf ji daal am na waaye toppatoowuñ na ku ko def yow la kee la kee mais am na rek baax na kon loolu mooy fardu fardu kifaaya fardu ayi day mel ni moom li ñu ci jublu mooy defar nit ki defar al fard al fardul muslim ñu defar ko moom ci jëmmi boppam ñu defar ko tabax ko ba mel ni war a mel moom lañ ci jublu waaye fardu kifaaya moom defar mbooloo mi lañ ci jublu maslaha ama fardu ayn liñ ci jublu mooy binaaul muslim wa islaahi fardu kifaaya li ci juru mooy maslahatul mujtama wala maslahatul am al maslaha al am intérêt général intérêt boo xam ne ñépp ko bokk bu ko ñenn defee rek wàcc nañu ci des kon bii nit kee ko tax a jóg moom moom lay defar waaye bii nag mbooloo mi ko tax a jóg moom lay defar moom fardu kifaaya li ñu soxla soxal ci waxtaan wi nag mooy fardu ki fardu ayn faratay jëmm mooy li nga xam ne yow yaa ko war a def kenn mënu la caa wuutu soo ko defee yàlla fay la soo ko defut yàlla mbugal la loolu mooy fardu ayn kon xam nañ lan mooy jëhl réer xam nañ lan mooy fardu fardu ayn boo gisee nag lu bari ci euh, waxtaan yi léeg-léeg dañ naan nangam farata la am ñu ñëw ne nangam warugar la nangam farata la nangam waajib la fard la liy waajib la loolu boroom xam-xam yi waxtaanu boroom xam-xam la waxtaanu boroom xam-xam la maanaam li ëpp ci borom xam-xam yi ñoom bu ñee nangam farata la nangam farata la wala nangam waajib la loolu benn la al fardu wal waajib bi maanaam waxi amul benn teqale ko farata mooy waajib waajib mooy farata mooy loolu loolu war rek am ñeneen nag ahnaaf yeeg noonu ñoom dañuy jàpp ne farata ak waajib bokkuñu farata mooy loo xam ne dalil xata yi la li ci des mooy dalil zanni yi lu dul farata mooy dalil zanni waajib mooy dalil yi waajib mooy dalil zanni loolu débat la boo xam ne ñi ñi am xam-xam tey dugg ci usulul fiqh ak sëñ Abdoulaye Diom ñi ñoom wala sëñ jiidi ñoom ak sëñ euh, kii mën na cee xam dara ñoom waaye li am solo rek mooy ñu xam ne boroom xam-xam yi ëpp ci borom xam-xam yi moom bu ñu nee farata rek waajib lañ ci jublu bu ñu nee waajib farata lañ jublu ñu naan asalaatu faridatun asalaatu waajibatun benn la benn maana rek la kon fu ñeew fu ñeew lu war ñi ngi naan farata fu ñu nee farata ñi ngi naan li war ci biir waxtaan wi yépp loolu moo ci moo ci moo ci dox kon ñu xamee ko noonu léegi nag lan mooy réere lan mooy lan mooy faratay jëmm yi nga xam ne nag moom lañ war a xam boo xamee lan faratay jëmm mooy lan mooy li nga mënta ñàkk a def yow léegi yooyu mooy yan ba nga mën koo def loolu moom it borom xam-xam yi wax dañ ci lu bari boo demee ci Ihya Ulumuddin ci Imam Ghazali wax ju am solo la fa wax moom dafa wax ne boroom xam-xam yi bañ demee ci fardu ayni lan mooy faratay jëmm dañoo wuute ñii ne ñenn ñu nekk la ñuy yëngu xam-xam ba ñuy yëngu lañ jàpp ne mooy fardu ayni ñii yëngu ci xam-xamu aqida fas ñu ne ah xam fas mooy mooy fardu ayni ndax moom mooy wax ci yàlla nuñ koy xamee melo yàlla waaw melo yàlla yi nga xam ne moom li koy xamee ak jëmm yàlla ji ak ay meloom li koy xamle loolu mooy xam-xam bi gën ci xam-xam yi te mooy xam-xamu fardu ayn kon loolu mooy farata ñoom loolu lañu wax waaye ñi ñi am ñi jàngale fiq yi ñoom it ne fiq mooy mooy fardu ayn lu tax ndax moom moo lay xamal yàlla noo koy jaamoo sa jëflante sa diggante ak yàlla moo koy lijjanti sa jëflante sa diggante ak nit ñi moo koy lijjanti kon loolu mooy fardu ayn ndax nit ki digganteem ak yàlla rek la am ak digganteem ak nit ñi kon loolu mooy fardu ayn waaye ñi ñi tafsir bi mu fassiroo ni ñoom it fardu ayn mooy tafsir mooy alkitaab wa sunna alquran ak sunna mooy tafsir mooy mooy mooy mooy fardu ayn ndax lu tax mooy fardu ayn ndax moom xam-xam yépp ci la jóge fiq ak tawxiid ak lépp ci la jóge mooy aslul ulum mooy cosaani xam-xam yépp kon cosaani xam-xam yi mooy fardu ayn moom la war a xam moom lañu war a jiital ñoom ñoom ñiy tafsir ñoom alquran ñoom jàpp nañu loolu mooy fardu ayn ñi ñi jëm ci wàllu tasawuf soufisme ñi ci jëm daal ne fardu ayn mooy tasawuf tasawuf ci boppam mooy fardu ayn lu tax ndax mooy defar xol te xol mooy defar lépp bu xol baaxee lépp baax bu xol bonee lépp bon kon loolu mooy fardu ayn nag lay defar loolu loolu mooy fardu ayn ndax bu baaxee rek lépp baax ñoom mutasawwifa ni loolu la ñu wax ñoom am ñu ne fardu ayn mooy mabaanil islaam man arkaanul islaam yi nga xam ne moom la yonent bi tuddoon ci addis boobee arkaanul islaam shahadatu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami salaa wa itaa zakat wa sawmu ramadan wa hajjil bayt yooyu mu tudd ñu ne yooyu yooyu mooy fardu ayn xam yooyu mooy li war xam ko xam nu koy defee loolu mooy mooy fardu ayn comme gis nga boroom xam yu nekk lañ nekk amal na leen solo gëstu nañ ca ba gis ca am importance yoo xam ne jàpp nañu lii mënut ñàkk mooy fardu ayn kenn ku nekk ne li ma li ma nekk mooy mooy mooy fardu ay waaye la ca am solo lépp mooy imaam Xasali ba mu waxee loolu ba noppi nag xulaasa ba lam ko lam ko tënkee nee na fardu ayni yooyu yépp mën naa dugg ci fardu ayni waaye fardu ayni gën naa lool ñu ne ko lan mooy fardu ayni mooy al ilmu bi kayfiyati al amali al waajibi waqta wujubihi al ilmu bi kayfiyati al amali al waajib waqta wujubihi mooy fardu ayni ci xam-xam li nga war a xam mooy lépp lu la yàlla sant ne la mënoo koo ñàkk a def danga koo war a def nga xam nanga koy defee xam-xam balay may nga def loola ne loolu mooy fardu ay yàlla neen la da war a julli xam nu ñuy jullee fardu ayn ci yow yàlla neen la da ngay woor xam ni ñuy wooree fardu ayn la ci yow da ngaa bëgg a jaay da ngaa bëgg a jënd ca marché ba xam nu ñuy jëndee nu ñuy jaayee fardu ayn la ci yow wa hakaza jaamu yàlla gu nekk yàlla teg la ko ne la lii kat lu war ci yow la nga war koo def xam-xam balay may nga mën koo def na ko yàlla bëggee loolu fardu ayn la ci yow parce que ni ñu koy faral di waxee benn mag day wax ne yàlla ku neex a jaamu la ku naqaree jaamu la ku neex a jaamu la ndax du santaane ñu mënut lu mu santaane rek dañ ko mën lu mu santaane rek luñ mën la waaye nag li tax li ma naqaree naqaree jaamu nag mooy day bëgg li mu la digal nga defee ko ni mu ko bëggee du ni nga ko bëggee yow moom ni mu ko bëggee rek nga koy defee ni mu ko bëggee moom waaye doo doo seet noo ko bëggee rek nu mu la neexee nga defee ko noonu julli tàkkusaan ñeenti ràkk la yàlla ko farataal ne na ngeen ma defal ñeenti ràkk takkusaan soo xéroon ba ne man day ah sawar naa wala jamono ji sedd na nangam naa ci teg benn ràkk ndax mu ëpp ndax mu baax muy juróom yàqu na ndax defewoo ko ni ko yàlla bëggee koor gi boo wooroon tey ba jot nga ne man kat xiifu ma maruma ndax fi ma nekk daa sedd naa ba fajar koor ga yàqu na ndax defewoo ko ni ko yàlla bëggee defewoo ko ni ko ni ko sunu borom bëggee kon xam li nga war a def nga xam noo koy defee loolu mooy fardu ayni ci xam-xam al ilmu bi kayfiyati al amal al waajib waxta wujub yi ndax lu tax mooy li la war te du la teggiku boo xamul noo koy defee defoo ko soo xamul noo boo xamul daf laa war da nga ko war a def waaye xamoo nu ñuy jullee ndax du dal wàcc du la wàcc julli du la wàcc maa laa yatimu al waajibu illa bi fa foofu waajib loo xam ne li la war mënoo koo def te defoo ko loolu moom day war ci yow loolu xam li la war mu mënu mënu ko def te defoo ko looloo day war ci yow kon imam Xasali moom dafa tënk loolu gën koo yaatal nga xam ne amut lenn lu mu ne lii mooy fardu ayn lan mooy fardu ayn lu war lu ñu war xam mooy lépp lu la yàlla sant boo koy def nga xam noo koy defee loolu daal mooy fardu ayn nee na mu misaal ko ci ne ki dugg ci lislaam tuub nekkutoon ci lislaam mu dikk dugg ci lislaam bu tuubee liy fardu aynem mooy xam shahadataan laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah nañ ko ko xabal ba mu xam lu muy tekki ñu sàkko ko mu wax ko ci làmmiñam su ko defee rek fardu ayni moom wàcc na ci moom la mu war a xam-xam na ko keroog su ca tegutoon dara julliwut wut wóoru defut dara daal di faatu bu demee bu dee mën naa dem yàlla yóbbaale ko àjjana ndax moom jaanam wàcc na ndax tusubaar jotagut waragu ko li ko war tey dii moom fii ñu nekk nii mooy xam ñaari ñaari seere yooyu lu muy ci tekki ak wax ko ci làmmiñam ñu ñu seereel ko loolu rek la war a xam su xamee loolu rek jaaram wàcc na ndax lay seere ba mooy bu dee woon ci diggante bi rek balaa tusubaar mu faatu dañ koy jàppee ab jullit sang ko sang ko jullee ko yóbbu ko ci armeel julli ndax ab jullit la te defagut benn jaamu yàlla ndax benn jaamu yàlla waragut ci moom kon loolu tegtal na ne sa xam-xam war mooy li la li la li la war ci waxtu wii nga xam noo koy defee li la war ci waxtu wii fii waxtu yi waxtu wii ñu nekk li la war nga xam noo koy defee loolu mooy fardu fardu fardu ayn suñ nebee ba tusubaar jot maanaam moom tuub na ci suba gi dara waru ko wax na laa ilaha illallah muhammadu rasulullah xam na lu muy tekki gëm na ko dara waru ko waaye bu tusubaar jotee nag xam nu ñuy jullee da koy war waaye avant tusubaar di jot dara waru ko dara waru ko waaye bu tusubaar xasee jot xëy na xam-xam lu gamay xam lu julli ga avant tusubaar day bëgg tusubaar ji bu jotee fekk mu man ko waaye du lu ko war feeg tusubaar jotul rek xam nu ñuy jullee du ko war bu tusubaar jotee nag ah ñu ne ko ah léegi nag xam nu ñuy jullee ndax julli daa war te mënoo julli te xamoo nu ñuy jullee kon julli xam nu ñuy jullee day war ci yow boobaa nga julli ko naka noonu yeneen jaamu yàlla ci yëpp lu agsi ci moom ci moom rek ki amul alal ju muy génne asaka xam lu asaka waru ko bu ko defee da ko neex rek waaye waru ko ndax amul lu muy génne alal ki war a dem makka te am munta amul lu mu demee makka xam nu ñuy demee makka ak nu ñuy ajee ak nu ñuy defee loolu waru ko ndax waxtu wa jotagut kon al ilmu bi kayfiyati al amali al waajibi waqta wujubihi waxtu wi mu waree war da ko war a xam ci waxtu woowu kon loolu mooy tënk bi nga xam ne imaam Xasali tënk na ko ci wax ci lool bu bu ñu xoolee mbindu sëñ Tuubaa yi dañ ci gis lu mel noonu lu baree bari muy feddi lu mel noonu ma ci wasiya bi mu bind ci fatul man naan fii jawaabi Abdurahmaan boobu ñu ñu ñuy faral di gis ma ngi cay wax ne war na ci mépp ci dafa war ci mu mu xam li nga xam ne ay waajibaat charia la ay warigari charia warigari yi ko charia teg muy faral yu ay yooyu ñu waxoon ci la ko yàlla digal lépp ngir mu mën koo def war a xam liñ ko tere lépp ngir mu mën koo bàyyi naka ngay defee ak topp yàlla te xamoo nu ñuy toppee yàlla naka ngay bàyyee ak mooy yàlla te xamoo luy mooy yàlla sëñ Tuubaa loolu wax yajibu an tata'allama maa yalzumuka fi'luhu min alwaajibaati alsharciya ala maa umirta bihi li taf'ala zalik wa maa yalzumuka tarkuhu min almanaahi li tatruka zalik fa kayfa taqumu bi taatin laa tacrifu maa hiya wa kayfa hiya wa kayfa tatajannabu maasi laa taalamu annaha maasi xatta laa taqa fiha kon looy def lu nekk da nga koy da nga koy xam mënoo koo def te xamoo yàlla bu la santee julli te xamoo nu ñuy jullee munoo julli boo jullee it julli ga la ci nekk nga ci rek waaw sëñ Tuubaa fedd na ko feneen am na am na feneen foo xam ne daf ne farata faratay jëmu wala farata ci nit mooy ñetti mbir ñetti mbir mooy farata mooy elmu tawxid elmu sharia elmu tasawuf ñetti xam-xam yooyu nee mooy xam-xamu farata xam-xamu tawxid nu ñuy xamee yàlla ak ay melo xam-xamu sharia nu ñu koy jaamoo xam-xamu tasawuf nu ñuy sellale jaam ko nee ñett yooyu rek mooy mooy fardu ayn xam ñetti ñett yooyu ama tasawufu fa fardu ayni ind al Ghazali gis nga ci masali ñett yooyu yépp benn mu ne bu ci nekk farata la nit ki daal war na ci moom bu demee ba mu nekk mukallaf mu xam ci tawxiid lu koy xamal yàlla ak i meloom yooyu mu tudd ca tasawut sixaar rek jawru na fii sax yëpp ñaar fukki melo yu yawar ci moom ñaar fukki melo yu jomb ci moom ñaar ak melo yi dagan ci moom loolu daa war benn bépp jullit lu mu tuuti tuuti moom loolu war nga koo xam loolu mooy sa ay ni ci ci tawhid sharia lu ca lu cay sa farata mooy nga xam jaamu yàlla yi nga gi ngay bëgg a def nga xam ni nga ko cay defee ni nga koy defee noonu ko imam Xasali wax tasawuf moom it nga xam mboolem raggi xol yi ak raggi biir yi rëy ak kiñaan ak Euh, yéem sa jëf ak rag yooyu nga xam ne yu xóota xóot la nga xam yooyu yëpp ba man koo wattandiku sellal sa bakkan defar ko at taxliya anil razail wa taxliya bil bil fadail nga xam yooyu loolu mooy kon fardu ayn mooy daal xam li la yàlla sant noo koy defee loolu nag ñen ñun ñëpp war nañ cee taxaw ndax ñun ñu bari ci nun ñi ngi julli ñi ngi woor mais xamuñu luy julli xamuñu luy wor wala xamuñu nu ñuy jullee xamuñu nu ñuy wore dañ koy def rek afalu ayna naasa yabuduna kama raaytu naasa yafaluna ni ko nit ñi defee laa koy defee rek waaye xamuma ci dara loolu nag lu garaaw la ci ab jullit lu garaaw la ci ci ci ab jullit kon tomb bi ci tegu mooy léegi bi nga xamee la lan mooy réer lan mooy fardu ay lan mooy réere fardu ay ni nag léegi réere sa fardu ay ni mooy lan mooy nga réere waajibaat diin yi nga xam ne yàlla da ko sàkku ci yaw sàkku gu dog ca waxtu wa mu waree ci yow nga xam ko ca waxtu wam waree xam ci yow nga bañ koo xam nga bañ a xam li yàlla waral ci yow noo koy defe waxtu wa jot na julli jot na nga war a julli te xamoo nu ñuy jullee wala julli jot na nga war a julli julli noo xam ne bokkut ak nañ diglee ko ko julli ñaar yooyu yëpp boo ci def rek réer nga sa fardu ayn li ñu muy julli julli misaal la rek waaye lépp lu yàlla digle rek noonu lay mel te te digle ga nekk ndigal loo xam ne ndigal lu dog la ndigal lu lu lu lu lu lu lu obligation la nga mënoo ko jàkk def ndigal lu la digal mënoo ko jàkk def soo réeree na koy defee booba réer nga réer nga safara day jëmm booba réer nga safara day jëmm loolu nag bari na lool nit ki moom ñi ëpp ci nit ñi benn xamuñ ci nit ñuy julli dara wala bu ñu ca xamee dara lañ ca xam wuute na ak la ca la ca la ca yàlla digle ak la ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam digle kooku mooy mooy jëlu mu rakkab nga xam ne koo xam rek dem ñu jàngal la waaye dangaa ngaa defe ne li nga xam moom la te du lool da xam defe ne li nga xam moom la te du lool loolu nag lu mat a watandiku la ndax julli ni mu amee solo nga def ko ba noppi ñu ne la sa julli gi baaxul ndax julli gu baax mooy gan dañuy wax ne ñaari mbir mat naa xàmmee jaamu yàlla gu wér ak jaamu yàlla guñ nangu ñaari mbir la yu bokkut jaamu yàlla gu wér ak jaamu yàlla guñ nangu jaamu yàlla gu wér mooy gan gu dëppoo ak niñ ko diglee jaamu yàlla moom ku ko def dëppale ko ak niñ ko diglee sa jaamu yàlla wér na kenn duutu ko sàkku ci yow koor jot na yéene nga bàyyi nga lekk ak naan ci fajar ba ci jant bi so yow am nga sawmun saxiix koor gu wér am nga ko kenn duutu la ne wóoroo ak loo mën a def naa ci diggante bi nag ginnaaw sàmmonte ak ñaar yooyu kenn mënut a ne war la yow waaye soo ci jógee nag mu ne saw mu maqbul nag mooy ban mooy saw mu boo xam ne nag yemoo ca loola rek yemoo ca loola rek maqbul mooy boo xam ne bi nga ko defee ba noppi rek la lay takk ba mooy bi nga ko defee ba noppi li taxoon ñu farataal ko ci yow jeexital na ci yow jaamu yàlla goo xam ne daam lu tax ñu far yàlla lu lu mu farataal ci yow am na lu mu bëgg mu jeexital ko ci yow am na lu mu bëgg mu def ko ci yow as-salaa gis nga ko dafa wax ca salaat dégg ngeen ko inna salaata tanha anil fahshaa'i wal munkar du li day tee def lu bon saw mu lu ca wax la'allakum tattaqun dafa bëgg ngeen ragal yàlla asaka lu mu ca wax tutahhiruhum wa tuzakkihim biha naka noonu yeneen jàmm yàlla yi gis yépp bu ci da dafa na lii moo tax dama bëgg bu ngeen ko defee amee ci lii kon looy xamee ne sa jaamu yàlla gi nangu na mooy ba nga defee jàmm yàlla ga ba noppi la ma la mu waxoon ne boo ko defee amee ko ci am nga ko soo wooree ba ba koor gi jeex ñu ne gis nañ weer wi wari nañ ñu wari ñu gis la nga mel noo melutoon ba nga wóor ba nga la jëkk koor gi ñu gis la nga mel noo melutoon ba ñu wóoragut ñu xam ne yow mii kon sa koor yàlla nangu na ko parce que loolu nit mënu koo xam ci xol la ne yàlla rek ko xam waaye nag mën na koo wane ci ay mandarga mandarga yi mooy jeexit jam ne woon moom la moo taxoon mu fara daal ci yow loolu loola feeñ ci yow julli yàlla def na day tee def lu bon ak lu ñu ñaaw kuy jullit te foo génnee ci jumaa ji def luñ sib def lu ñaaw def lu bon na julli woo loolu laay wax ne ñun ñëpp ñi ngi julli waaye day mel ni bon bon yi ak yu araam yi ñuy def mi ngi gën di bari loolu lu muy tekki nag ku ko wax da ngay wax ne kon nit ñi seeni julli yi yàlla nanguwu ko ndax yàlla moom li wax moo am inna salata tanha anil day tere lu bon di tere lu ñaaw yow nga julli ba noppi di def lu bon di def lu ñaaw lu muy tekki mooy julli woo li muy tekki kon mooy julli woo kon eh, ñàkk xam li la yàlla digal dafa nekk loo xam ne lu garaaw la ak mooy yàlla la gu rëy atte bi atte atteb ñàkk xam googu ak mooy yàlla la gu màgg bàkkaar bu rëy la tam yàlla digal la julli te xamoo nu ñuy jullee yàlla digal la koor xamoo luy koor yàlla digal la asaka xamoo luy asaka yàlla digal la jaay jaay ak jënd wala bu daganal ko ci yow xamoo nu ñu koy defee bàkkaar bu rëy la mooy yàlla gu rëy la tam te ku ca ku ca ku ca sax defaroo ko jéem koo réparé ba ngaa faatu boo faatu danga nga boo dajeg yàlla da nga xam ne yàlla buur la ndax niñ ko xamee mu kàllaf moom daa wër te jëf jenn jëf te xamut àtteb yàlla ca loola yow jëf jooy jëf jënn jëf jooy jëf ju ne moo xam farata la moo xam sunna la moo xam leneen la mais da war a xam loolu lu mu ah, waaw xam loolu lu mu ndax yàlla sunu borom tabaraka wa taala dafa yónni yónnent yi jox leen ay message ñu indi ko ci nit ñi ñu war koo jàng war koo jàngale war koo jàng war koo jëfee war koo jàng war koo jëfee ku ko jàng jëfee ko ku ko wala ku ko jàngut ku ko jàngut jëfewoo ko ah da ngay mooy yàlla ñaari mooy yàlla mooy ñàkk def li la yàlla digal ñàkk def ñàkk xam li mu la digal ñàkk a def lim la digal ñàkk gee xam ñàkk gee def ñaari mooy yàlla la wa in alima fa man taraka taalluma wal amal wa baqiya jahilan faqad asa maasiyatayni li tarkihi waajibayni koo xam ne xamoo jëfoo dangaa ngaa bàyyi da def ñaari mooy yàlla bàyyi nga li nga war a xam te xamoo ko bàyyi nga li nga war a def te defoo ko kon mooy nga ñaari mooy yàlla wa in alima walam yaamal faqad asa maasiyatan waxida soo xamee te jëfoo mooy nga yàlla benn mu yàlla xam nga ba noppi jëfoo wa man alima wa amila faqad naja ku xam te jëf nag yow yaa mucc mucc nga